kon mbokk talibé ñu téwlu teewluwaat bu baaxa baaxa baax euh toga toga bu bu santa di yalla bu baaxa baax ci tawfiq gi nga xamanteni bi mom lañ am ci bis bu tedd bi ku nek xam na ne mbolo mi yëpp ñu ngi jóg ci ndigal ndigal moy ndigal Cheikh mohammed muntaha khadim Rasoul mu joxe ko ci bis bu tedd bu mag bii nga xamante ne bii mbokki taalibe yëpp noo koy waajal ñi waajal nañ ko ci seen i jëmm ñëw ñi waajal nañ ko seen alal yónnee ñi waajal nañ ko ci seen xol fas ndax boo la fa am mu nekk rek tey sa xol ak sa xel mu ngi fii ci Sarsara yàlla moom dogal nag dogal liggéey bi yëpp mu tekk ci loxol doom ji tedd ji muy Serigne Sidi Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké Xaadimu Rasuul mbok talib yep di ko xel mbolo mi nak bok ci mbolo yi nga xamanteni bi ñoo jugee masalikul jinan te dakaru yalla dogal daire bi soxna Ayda Dem di jëwriñ ji di coordinateur bi Mbakke Balla mo andak ay mbok talibem ñi ñep ay soxna lañ yo xamé seen kër lañ tej bàyyi seen njabot bàyyi seen borom kër bàyyi lepp ngir damu jëj rek sa barke bi nga xamanteni mom la waxone innal lazina ila sarsaara xat asadu siyaare na faaraxoo daareen aw sara dañoo bëgg am ñoom ñëpp daareen aw sara kon Mbàkke Balla nga xam ne ñi ñëpp Mbàkke daareen aw sara lañ bëgg am dañoo bàyyi ñoom ñëpp dara amul njaboot kon a xam ne ne njabootu jigéen daa mën a yaatu te jigéen saa ñaan rek ci njabootam lay jiital góor ñi itam ñoo yilif jigéen ñi te ñoo ngi ànd ak ñoom bi ni ñëw nag am nañ taw feexu ànd ak kenn koo xamante ne bi ci sëriñ bi la bokk ñu doon ko xoolee sëriñ bi diiru yoon wi waaye mu mat bi ak teggin gi nga man nga mën japp na ne la sante ngir bolé bopam ci donga yi ngir japp na mok donga ñoo bokku lu ñu wur muy sëñ muy sëñ basiru mbàkke mii nga xamante bi doomi sëñ Moustapha la mom sëñ Sidi Muxtar mom Cheikh mohammed Lamine Bara xaadimu rasul euh, muy nit ku bax di nit ku yiw di nit ku tedd and ak ay jëwriñam ak talibem ñu and ci mbolo mi euh, ñoo nek ni nga xamante bi ñoo juggé Touba masal ko ñinan naan xana ñu ñaan la borom yalla nga yàgg ñaan fi xidmati wa hablahum maaraamu barke Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke Xaadim Rasul sa waajur wa di ñaan suñu borom yàlla daal yàggal fi wér set na suñ xel itam dal na euh, ndax itam murit saa bu jëfee ndigal xelam dal na waaye nag ñoo fekk kan joxe ndigal la nga ñëw saafoonte ak moom nuyoo ak moom mu xam ne yaa ngi ci dëkk bi lu rëy rëy bàyyi ay yitte yu wét yëpp itam ñëw fii nga dal lu rëy rëy la ndax am murid màggal nga ba ñëw te dajewut ak comme joxe ndigal te teewul moom sëñ Tuubaa waaye nag lii day dalal xelam day tax xelam gën a dal day tax ñu gën a xam ne ci liggéey bi lañ yàgg ci barke Xaadim mu sol ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen bu baax a baax a baax nuyoo boobu ak ziar bi nag dañ koy def ci turu Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Mamadou daa di ñaan yalla yagal taxwayam te doli ko carton doli ko wér waaw jox di len di len wax lek yitay gi nga xam mo tax señ bi jog jëm ci yeen sonay da ñoo lay ziar yaag mbolom yi nga andal yépp ndax ku na xam ne bi semaine bi yépp ci li rek la nek téro ay gan waye limi sonu sonu dañu duma dem sarsara te dem ma dalu dallu soxna Ayda mastawu ko ak mbolom yi mu àndal loolu sax waye ku na xam ne waxtu wi xatna lo ndax auto ya ngay tak jëm sarsara waaye dañ nu ñu mën a def nañ ñun ak ba ci soxna Ayda loolu nag li ko waral mooy yëg gu mu yëg jàpp gi nga jàpp liggéey bi yaa ngi ñi nga àndal te sëñ si di moom kuy yëg Sarsara mu yëg te xam ne yéen ñi yëg ngeen Sarsara sëñ baa ngi leen di jaare ci taw coono bu baax a baax tey ñaan ci yàlla jontoog sëñ Tuubaa mi ngi tax ngeen jóg lépp lu ngeen jóg méta mu jëm ca Sarsara yàlla ngeen dajal lu kawe seen jot sëñ bi daal nee na moom mi ngi am mbégte lool ci ñëw bi ngeen ñëw fekk si ko ci woote bii mu wootee mi màggalu Sarsara bi di len ñaanal nak mbolo mi yalla len sam borom gëna kartanal gën len doole gëna tapé xol yi ngeen gëna doon ben ba bok ci ñi nga xam dañuy leewu liggéey mu jëm ci kaw kaw kaw yalla len serigne bi boole yoy yi te dal moy tanki serigne bi fépp fu délégation nek nee ma luma son son ba bala ñoo dem Sarsara nañ fa andu ma massaw le ndax ciona yi ni jankonté ndax ñun fii lépp waaye xoola ñom ñi Touba ñi Dakar kon ñun son son war ñu jógee ñu sonn ndax ci ko yi dañ loolu tax sëñ bi ni bala moo dem seen dara dinañ ñëw ba ci yéen masawu leen coono jaaraan ko yéen xamal leen coono yi ngeen nekk yëpp yëg nañ ko waaye ngeen jóg kenn dong ngeen sëñ Tuubaa waaw yàlla nañu daje jërë sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jërë ngeen léegi ngeen ànd ak moom nag neen du ngeen tàqali ko ba ci kanam rek rek xel waaw ngeen jëf soxna bi yow mi ngi lay sant ndax ba nga ci liggéey ba bi nga taxaw nee na ñu ngi lay ñaanal yàlla te gën laa kàttanal ah nee na loo jëf ren te déwén na nga jëf ñu ko bi nee moom daal wax dëgg yàlla xolam sedd na buy ci yow waaw bañ nekkee Sénégal maa ngi ñu ngi doon jokkoo ma lay jokkoo sëñ bi koo yow waaw gis a finte oto yëpp a nga takk jëm sarsaan mun mën nañ leen dem siyaara ji soxna Ayda loolu moom kon wane nañ loo jàppoon na nga gën a jàpp te gën a pësewu te xam ne yaag sëñ bi yeneen na jërëjëf dégg nga ndax day soxna wérul fenn néew na ci doole lool waaye moom mu daa daaroo Cheikh Modou Moustapha mi mu yaakaar rek lu muy def moom la ci jiital néew na ci doole lool na ko ñaanal suñu borom yàlla musal ko seytaane lafal ko cet ak la yéenem ci barkeb sa maam Xaadim Rasul ak yéene yi mboolem mbokk taalibe yi ñëw yëpp na leen te wax amin wax soxla yépp امين بارك خادم الرسول رايو لين